man de bés bu ñu nee marche góor jigéen maa fay jiitu bu ñu nee tey mooy marche boo xam ne man bugguma góor jigéen du ma wax góor jigéen a ah, dara ma may xaalis nag ma jël man xaalis moom ku ma ko may ma jël.